thank you yaaw yaaw chers amis internautes de Sen Rap 7 ngi leen jaar di leen bëggee naan leen welcome bienvenue dal leen jàmm tey nag dañuy dalal benn big artiste benn ndaanaan koo xam ne mën nañ ne xam nga dooree treize bala mbédocratie ki ñu am tey doon koo xam ne kenn dootu ko présenté ci mim réew ndax yéeme yee di Big Ravey beat sans problème ba indi or ak platine dans son propre quartier le gars il partout mi ngi ci série yi nekk ak série di négocier so chers amis internautes def leen fresh toog te xam ne da ngeen fas yéene noos ak IS 814 beats chers gars yee di la bëggee di la jaajëfal intro bi nga def nice trop di siyaar ñi seetaan inter xam nga internautes yi seetaan Sénégal set yëpp ñu leen di jaajëfal xam nga di leen siyaar one love. yow ISU 814 da nga doon waajal concert le 26 initialement date bi vingt 26 la woon ñu pousse ko lu waral ñu pousse concert bi déjà. waaw déjà loolu xam nga équipe bi moom mooy xool par exemple. li li aajo ak par rapport ak date bi ak li muy def rek donc gisoon na ni peut-être date bi c'était un peu compliqué ñu pousse ko ba le 3 quoi mais décalage bi une semaine la donc compliqué wul quoi parce que suñu jugee si le 3 gars yi dañuy nekk si affaire tabaski waajal moo tax ñu def ko le 3 hier. donc ngay waaj ngay waajal benn événement événement bi après nañ ci ñëw quoi mais IS 814 euh, am loo xam ne suñ ko waxee IS 814 foog seen xel dem si Fou malaat quoi. lien bi moom c'est loolu kenn loolu loolu kenn mënu ko dindi mais doon rakk Fou Malade loolu mënul mësul doon sas ci yow. waaw non non non non parce que Malal aussi bon fierté la non man benn ngande affaire boobu affaire bu ma kontaan la parce que tey xam nga beaucoup de gens Malal yee Malal Malal légende sax peut-être man Malal sans nit ñi def ko légende man légende laa ko def sans nit ñi def ko dara man man maa ko yëkkatil sama bopp quoi donc loolu même boo duggee sama famille c'est je suis beaucoup moo gën a nekk sama gaayen quoi sama waa gaale yëpp. malal moo si gën a nekk sama gaañan malal ak gabi ñoo gën a nekk sama gaañan donc loolu yàlla moo koy def du lu nit di tànn xaritoo ay affaire yooyu yàlla mooy boole ay nit yaa ngi comprendre malal am na ay grand frère yoo xam ne suñ nuyantee wax ay wax après pare nañ si c'est pas profond man ak malal dépassé nañ loolu daf ma tuddee doomam sama jantal grand la. léegi X800 la commencé wala son. parce que parce que dañ suñu naan IS 814 am na ñoo xam ne peut-être lañ la xamee am na ñoo xam ne peut-être lañ la xamee am na ñoo xam ne peut xam nañ ñaari ci yow waaw. mais lépp son la. <laughs> maanaam boog bit am na baat am na. waaw mais bit laa bit bon bit laa njëkk a commencé après commencé di rap après de xam nga la ma gars yi xamee quoi mais ba ma nekkee booy ba léegi maa ngi def ay mais bit laa commencé quoi. parce que normal parce que am na ay affaires yu bëri yoo xam ne euh, defoon nga ko fi comme ay it yu bëri yoo xam ne IS 814 def na ko fi am na ñu bëri ñu mu defal beat mais man li may laaj mooy beat yi nga doon defar kan moo la gën a satisfaire ci beat boo tëgg. mais ñëpp ah sincèrement musuma. dina am benn bu la gën a faj boo xam ne ngay déglu waaw. son bett ma quoi ma dégluwaat ko mu bett ma xaw ma man damay def rek après ma bàyyi quoi après d'habitude ñi may jooba loolu yëpp dans le temps si c'est c'est man ak ñoom ñooy nekkandoo studio job ko donc ni ñuy génne idée ak lépp day naaj rek mais du ma bett quoi parce que damay fekkee fu ñu koy coobee. au moins xam nga biir di ci biir yi nga mës tëgg yëpp am na si benn boo xam ne le gars comment il a posé dessus ça moo la gën a moo la gën a neex waa genre. ni mu si dóoree moom mu gën a neex. wala kenn teg ci loo xam ne yow loolu nga doon xaar exactement ci biir bi ko j'aime samay production kan laa mos sa jox bit mu bett ma si quoi benn américain mais albumam génnagul quoi. kon loolu noonu mën nañ ko xaar ko yee day ñëw il chante trop bien. ma jox nu mu tudd. Alexander Marco Alexander. yeah he's very nice. léegi léegi Issa euh, ci euh, comme exemple euh, yow ñaar ngay tëggee bit déjà d'abord. dépend rek. ça dépend maanaam. ah am naa budget yëpp. budget yëpp mais lan mooy catégoriser artistes yi par rapport ak budget yi ko ah dépend rek des fois mun naa tëggee bit su ma la yërëmee trop. dëggal la ay waaw ay deux cent mille yërmande amee dëgg su ma la yërëmul mun naa la tax ay cinq cent. bu dee business rek moo tax a jóg je te connais pas tu me connais pas ma ñëw pour tëggal ma ñëw pour nga tëggal ma prod. bon prix c'est ça c'est variable quoi. mun naa la jaayee bit 500 mun naa la ko jaayee 1 million ça dépend si budget bu nga yor ak lan la bit bi jaral quoi ak bit bii nii lan la mën a def loolu la. léegi yow bit euh, making ak ak hip hop pour yow la moo gën a fay tawal côté côté côté rendement quoi. instant bi nii instant bi beat making yee mais rab li nga si mun a def en un temps record mënoo ko def si beat making rap su artiste bi di dox dëggantaan jaay tous les week-ends il va encaisser des millions. su la gars yi di booké fépp chaque week-end mun na si rëcc benn quatre quatre ba cinq million chaque week-end beatmaking doo def quatre ba cinq million par week léegi yow yow tamit euh, ban ban instant nga am déclic wu ne carrément man je vais faire je du bit du beatmaking quoi. non man yàgg na yàgg na man dama ko bëggoon quoi amul amul jeewuma rek ne damay def. da nga ko doon da ko doon da nga doon foowee depuis depuis booy ba. déclic quoi mooy nga yeew rek ne je décide de faire ça mais damay def rek ah, damay yeew rek di defar ay bit rek parce que j'aime bien defar ay bit même su fi yi nekkul damay defar ay bit quoi pour enjoy feel sam bopp man su may defar bit damay damay nekk quoi après c'est pas côté xaalis du dara côté xam nga nit ak lu lay dundal quoi. passion mooy passion. passion bi quoi am na ñoo xam ne xam nga daaji seeni paquet moo leen di dundaloo xam nga. Mm-hmm. affaire yooyu moom may dundal quoi. Mm-hmm. donc defar biit xam nga partager samay énergie ak nit ñi. dama doon sama sama gaay am na benn jour ndeysaan moom mm-hmm. ma sama benn xarit. moom dama doon dama doon dama jël Galsen Hip Hop Awards mu yónnee may message benn WhatsApp un message très touchant quoi. mu ne ma booy vraiment ma jël quatre trophées mu ne ma maa ngi lay féliciter quoi mu ne ma tu te ba ñuy ñëw sa gaale ñu ñëw récréation on parlait ñun dañ fay nekk di naan booy fayal ñu sa biti waaye mun na ñëw dañ doon waxtaan sax mais tu étais à fond dans les bits soo paree ne booy déglul bii déglul clap bi Serigne chaque jour mu ne ma may ma may ma tuuti clap foofu may ma tuuti kii <laughs> may ma snaar bi may ma clap bi pour man loolu moo ñuy dundal pour man loolu mooy def lu ñu doon xool ay bigi bigi benn copin bu ma njëkk a jox VST ndeysaan digi ma néga BMS yee xam nga dundal ma jox ma ay xam nga jox ma ay may dem néegam ñuy defar ay bit loolu is for love. yow ci say son yow dañuy gis à chaque fois ngay bëgg say oji say niggas xam nga dafa mel ne y a quelque chose de profond bu am entre vous quoi parce que am na loo xamante ne man duma ko def sans ñoom tey nit bu ma nekk ay damay jël xam-xamu kii fii xam-xamu kële fële xam-xamu kële tey xam nga tey beat making tey xam-xamu kan la. <laughs> laaj naa la ko yow beat maker bi. comprendre xam-xamu ay nit yu bari la. boo xoolee logiciel bi dañ la naan kii technique kii technique ñooñu ñëpp seen xam-xam lañ def si biir logiciel. Ah, diw defar na paak bi kii defar na paak bi. importance si sa carrière yëpp da nga leen di xam nga saluer de passage nuyu leen boole leen si xam nga affaire yi parce que tamit gars yi reconnaissance rek nga leen mën a fay. gars yi leen fay reewande munoo leen jaay xaalis. donc yow léegi reconnaissance boobu yow lenn nga am muy sa baat ak sa biit jox leen ko quoi dóoral leen son. xam nga comme ni nga koy defee. des fois ma romb leen may leen benn 500000 ne leen jël leen maa leen may lii. Ah, mais 500000 dawul. non dawul c' est bon. ah par rapport ak bii di li ñu lay fay. non c' est bon c' est des enfoirés. non bu loolu <laughs> mais yow tamit yow ñi ngi gis que ne yaa ngi fayeeku ci série yi yaa ngi fayeeku ci waa. amiin. waaw ñaar. waaw mais amiin waaw. bon xam nga xaalis. sant yàlla mais l' argent c' est pas le plus important je suis pas riche hein. mais tu te plains pas. non maa ngi sant yàlla maa ngi fay sama gaal di dund di fay facture. di romb sama copain non sama copain yëpp am nañu xaalis ah sama gars yëpp ils sont riches like Pape il est riche Niang il est riche Momo il est riche Lo il est dañ ñoom ñoom ñoo ma daw la ah, ñoom ils sont peinards ils sont très riches sama copain kenn rek moo si pauvre muy alpha bu dëkk Soprim il est très pauvre il est d'une pauvreté extrême. Alpha parce que waroo ko jàpp. non non non kooku non du génn si pauvreté. parce que train de vie may ko mu génn si pauvreté. il est irrécupérable quoi. <laughs> Ah, c' est mort. yeah IS 814 ngay am biir Senab Rap set the may ko man léegi léegi IS Walter White Bicrav yooyu yëpp xam nga vocabulaire boobu noonu maanaam Walter White ñi nga xamee ci benn série yaa ay Heisenberg mais Bicraft tamit mooy jaay mooy li Walter White doon def en quelque sorte lan lu yow yow léegi genre euh, qu'est-ce ban message nga bëgg a joxe à travers euh, affaire boobu noonu ay Walter White Bicraft Dile def ay affaire like what. si l'islam musique dafa xaram. <laughs> waaw waaw. waaw dafa xaram. dafa xaram ya <laughs> l'école ah di ñafe pour génn si. mu gis ne école bi géré la tu ko ay affaire mu génn si mbedd di jaay met man école laa demoon di jàng pour génn si. mais xam nga mais mais xam nga Walter White bi muy def loolu moom dafa dem ba xam ne dañ ne ko peut-être genre il te reste tant de jours à vivre. genre ah, affaire il reste tant de jours à vivre. ñaata jours moo dese. non mais je veux dire xaw ma mais je ah, moom il était il te reste tant de jours à vivre. Ah, loolu moom mais xamuñ. mais je veux dire du affaire survie du vie bi wala dara mais li ngay wax mooy. juste le message quoi message bi bi bi englobé loolu lépp. li am si. si situation de ghetto yi ak situation de pauvreté li Fabé bi doon wax mu ne l'illicite viole la pauvreté dans l'ascenseur social tey ay feec tëgg soo demee si diine c'est condamné tey pourtant ñaata ñoo koy def pour génn si parce que amuñu beneen issue demoon naa ba bàyyi sama jàng bit rek laa dese kese kese kese booy ma defuma leneen man bayuma ŋàccuma neexuma UCG man sama sama sound yi lay def it's like moom lay <laughs> game instant bi nii